Merci. Je voudrais à mon tour euh, vous remercier. Le monde entier sait parfaitement qu'à travers les élections législatives du 31 juillet 2022, que le pouvoir du président Macky Sall a perdu la majorité électorale au Sénégal. Cela est manifeste. Cela est concret et cela traduit la volonté fortement exprimée du peuple sénégalais de mettre en exergue les allons du changement à travers l'intercoalition Yewwi Wallu. Le peuple sénégalais, mû par la défense intrinsèque de ses intérêts supérieurs, mais également pour faire dessiner à notre pays les contours d'une démocratie réelle, à même de générer les conditions de satisfaction de la demande et des besoins des populations pour un développement harmonieux, mais également pour l'intégrité, la souveraineté et des perspectives de rayonnement économique et social de notre nation. Le peuple sénégalais a donné la majorité à l'intercoalition Yewwi Wallu pour redresser ce pays, pour sauver le Sénégal. et pour faire amorcer à notre pays un grand virage vers son développement, vers la démocratie et l'expression des libertés. Mais cela est clair et cela est déterminant. C'est la raison pour laquelle l'intercoalition Yewwi Wallu ne peut en aucune manière accepter l'inacceptable. Et l'inacceptable, non acceptable, c'est la volonté manifeste du président Macky Sall et de son gouvernement de confisquer la volonté populaire. Cela, nous ne l'accepterons pas et cela ne passera pas. Notre mandataire national, le président Déthié Fall vient de le dire, c'est à travers un patchwork de mécanismes aussi alambiqués les uns les autres et par le truchement de falsification de procès-verbaux que le pouvoir et le gouvernement veulent s'y prendre. Mais cela ne passera pas. Personne ne confisquera la volonté populaire et nous allons mettre en exergue tout ce qu'il faudra à cet égard pour faire obstacle à cette entreprise, totalement en porte à avec les intérêts du Sénégal et la volonté populaire fortement exprimée le 31 juillet dernier. Je voudrais à cet égard remercier le peuple sénégalais, remercier les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, remercier particulièrement les Sénégalais de la diaspora qui se sont mobilisés pour fortifier cette majorité indiscutable pour l'intercoalition Yewalo pour le changement. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di wax ne li nga xam ne nii moo fi xew le 31 juillet dafa leer nañ li mu leere mooy sénégalais yi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp a taxaw ndaxte dañoo sonn dañoo lot dañoo bëgg changement dañoo bëgg beneen Sénégal Sénégal bu am beneen xarkanam kanam xar kanam boo xam ne nii day méngook fii nga xam ne nii dayoo réew mi fa la toll te loolu leer na ne pouvoir bi fi nekk muy pouvoir Macky Sall ak régime joxuñu ko Sénégalais loolu moo tax Sénégalais yëpp jóg ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëpp taxaw takku jóg voté ba ñu voté ba pare ñu gagné parce que kenn réerul mbir ne Yewwi Wallu moo gagné kenn réerul mbir ne. changement moo gagné kenn réerewul mbir ne beneen doxalin moo gagné loolu nag la fi président Macky Sall bëgg a bàyyi bañ ne du bàyyi lii nga xam ne ni moom la Sénégal yi bëgg ñu doxal ko assemblée national mu nekk assemblée bu bees assemblée boo xam ne nii day nekk ci li nga xam ne nii moom la doomu aadama yi bëgg mooy askan bi lu bëgg mooy ñu delloo askan wi li mu moom loolu nag duñ ko nagu te nag ñu koy wax ne lu mu ko jaral rek jaral nañu fukk te bu neexee la volonté populaire boobu du ñu nangu ku ko confisqué daañu taxaw jaakaarloog ñoom ba yoon li mu laaj ñu am ko te loolu yoon li mu laaj bu ñu koy amee mooy lan mooy bu neexee la assemblée bii di ñëw cohabitation mooy am mooy ku jégi mooy giite ku jégi mooy doxal ku jégi mooy indi yoon te yoon boobu mooy yoon bi nga xam ne nii moom la peuple sénégalais bi wax coalition intercoalition Yewwi Wallu pour que ñu doxal pour que Sénégal am beneen xar kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant